شهر وفي سفر وماني على ماني ما نفس والصبر سلام الذي في كل شهر وفي سفر وماني على ماني bienvenue à Touba mbokk yeeg xarit yi gis ngeen nag ambiance bi nga xamante ne nii rek ci suba ba léegi moom moo nekkoon Diourbel wan nañ leen bernde yi nga xamante ne nii aussi moo nekk Diourbel gis ngeen itam yoonu Touba bi ambiance bi nga xamante ne nii am na fa gis ngeen euh, li nga xamante ne nii rek moom lañ leen wan ci yoon bi bi ñuy ñëw Touba tey nag agsi nañ fii nga xamante ne nii moo di dëkk bu tedd bi dëkk Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul ñoo ngi fii ci garage yu Dakar bi fas yéenee xool ñi nga xamante ne nii nag ñoom ñoo màggal si ñi màggal si nag dinañ ci dékk ñenn ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo ñëw fekk ñu fekk leen ci biir garage bi ñu fas yéenee waxtaan ak ñoom seen euh, arrivée fii ci Touba naka lañ ko dundee. mbokk yeeg xarit yi nag man soxna Yacine comme ni ma leen ko waxee woon rek bi nga xamante ne nii ñu ngi taxaw ci rond point garage yu Dakar bi ci Touba dugg si nañ nag ci biir garage bi fekk nañ fi nag suñuy yaay dañ leen di laaj naka lañ dundee yoon bi ak fan lañ jóge màggal si yaa booy maa ngi lay ziar. waaw kay yàlla nangu si ziar. xanaa sonn nag ci yoon bi nag rek. Mhm. wante lépp sëñ Touba moo ko jar. Mhm. ndaxte tàkkusaan lañ duggoon waaye tey tey boo ñëwee ba ci yoon wi dañuy dox comme nit màggal gi daal di ñaan xéewal nag rek ñaan fekke ak tal ak yàgg koy def di ñaanal sëñ Touba yàlla yokki leeram yàlla may ñu ñu fekk ko ay màggali màggali màggal te màgg gu gën a ñëw gën a neex moroom ja daal loolu la ñuy ñaan bi ngay ñëw ci yoon bi yan jafe-jafe nga jànkonteel xanaa oto taxaw nag rek taxaw ak a bàyyi taxaw ka bàyyi taxaw ka bàyyi rek. Mm-hmm. waaw nag lépp rek ñu xam ne sëñ Touba moo ko jar. Mm-hmm. moo tax ba dara mitiwul nag ci noonu mm-hmm. fee soona bu man mën di soone duñ ko yëg. ndax sëñ Touba rek la ñuy nooyee. moom lañ bëgg suñu xol. ni ko bëggee nag. yàlla bu yàlla tas suñu yaakaar ci ñoom. ñu daal kontaan nañu bég nañu. jërëjëf ndax màggal gi dafa neex. ndeysaan màggal gi ci boppam dafa neex. kon coono bi doo ko yëg. billaay coono bi yëguñu ko. ndeysaan billaay sama doom coono bi yëguñu ko. xaaral fekk ko te ko rek daf koy déwén di déwén. amiin liggéey bi ngeen di liggéey. Mhm. yal ko yàlla barkeelal. amiin amiin. jërëjëf yaa booy mu mel ni kàddu yi rafet na lool sëriñ Touba moom moo ko jar ndax nee naa la kenn ku ci nekk jóge nga dëkk ak dëkk ñëw wut si dëkk bu sell bii di Touba Mbacké li ko waral nag mooy màggalu Serigne Touba gii mu ne woon santale leen ma ko yàlla yaakaar naa ne li ci Serigne Touba doon wut gëm naa ne am na ko ndax ku gis lii rek sa xel wal naa dal. booy noo def. maa ngi fi rek. yaa ngi ci jàmm. sant yàlla bu baax sant sant Tuuba. Ah. ñu bëggoon a xam tur bi ak sant bi. man maa ngi tudd nday Wade. Ndeye Wade waaw. Ndeye Wade ah, nañoo xam bëgg nañoo xam fan nga jóge màggal si. man maa nga jóge Bambey. Bambey waaw. ndeysaan. tubaar fakkaala sëñ Touba jër na lépp macha allah. ba ñu fa ñëwee ci suba la woon gis nga ar bi ndox si. Mhm. télé bi kenn mënu fee mhm. ndax ngir yàlla ak sëñ Touba rek. yal na nu yàlla jàppale nag nangu sunu ñaan nangu sunu màgg di jaay xaadimul xadim parce que xaadimul xadim sëñ Tuubaa amut morom te suba ak tey oto yi mënut a fexe ba jàll mënunoo buuse itam ndax sëñ Tuubaa rek kenn ku ne yàkkamteeg si Tuubaa ak si nañu nag ci jaam nun maay taal bëpp sëñ Thier Diouf Lambaye borom ñi beeg Lambaye na nga jëm 28 kër sëñ Thier foofa la ñu jëm sëñ Laay Diouf mooy sunu sëriñ. ma bëggoon ma bëggoon a xam naka nga dundee yoon bi rek ndax xam naa metti woon na. yoon wi moom metti na moom ndax toog nañ ba sonn. wax dëgg yàlla yoon wi metti na moom. léegi bi nga duggee ci garage bi gis nañ ne nit ñaa ngi taxaw est-ce oto moo ñàkk. oto jafe na nag. Ah, wax dëgg yàlla oto jafe na tubaar fakkaala ni ngi yem nag rek waaye oto yi tubaar fakkaala ndax nit ñi dañoo bari. nit ñi bari. kilifa gi ñoo ngi lay ziar. waaw nax nu ko Salika. Mhm. ñu ngi lay ziar bu wér maanaam euh, li nga def ni dafa neex parce que olof njaay dani napp te weñ tax te bëri weñ maa weñu suba ñëpp ku la topp waaye comme singil am na loo def sëñ Bamba dafa nekk koo xamante ni kenn la koo xam ne Sénégal xamuñu ko maanaam dina xam nag ci kanam lay doon mais jamono bi ñu toll nii maanaam mënuñoo xam kan mooy sëñ Touba maanaam sëñ Touba ñu ko ñun ñu dëkk Sénégal dañ ko xam ñi nga xam ñoo wàlle yàlla di ñëw ñoo xam kan mooy maam ñi da ngeen nekk ñoo xamante ne si euh, ay journaliste ngeen mais da ngeen di wane li nga xamante si pour nit ñu mën a xam seen gëm-gëm ak seen bëgg-bëgg ci àdduna ak woon ko sëñ mooy kan waaye kenn Cheikh Ibra Fall mi nga xam moo woon sëñ Bamba waaw ndax danee la la réeroon ko ko wonee kooko lu doon mënuñu koo xam mais nag benn affaire dana am ñun ñi dañoo war a mën a jaayu jaajuwaat yeesalaat suñu jëmm xoolaat suñu bopp ñun ñooy ñan mën a xoolaat sëñ Bamba war koo xool fa nga xam ne fa lañ ko mën a teg war koo am dund ak moom ndax ki la jël defal la tey bu ñu tëddee nelaw sëñ Bamba la tey bu demee bay sant sëñ Bamba la tey bu ñu demee ba ku nekk sañee taxaw def la la neex sëñ Bamba la xëy na nag dane ku wéet xam kala man te xeexu leen sëñ Bamba mooy ki nga xam moo fi nekk moom kese la allahu waahidun ah, sañ bi noo def. sant yàlla ak sëriñ Fallou Mbacke. mën nañoo xam tur beeg sant bi. Pape Sini Diagne bëgg Fallou doon dofam àdduna ak laaxira. yow da nga màggal si wala. damaa bàyyi or ñoo màggal si waaw. da ngaa bàyyi mais yow chauffeur nga. chauffeur laa waaw. Ah, en tant que chauffeur naka nga gisee chauffeur yi tey ni ñu dundee ci màggal gi par rapport ak si charge bi nga xamante ne nii def nañ ko ak paas yi nga xamante ne nii yokk nañ ko yow lan ngay waaw yokk paas moom du dara. du dara gaz wala rek. waaw yokk paas moom du dara si sartu tamit loolu si sartu gars yi nga koy jox. métti na lool lool lool lool lool parce que yàlla. loolu si sartu pour am si dara gendarme yeeg policiers yi nga koy jox. magal gi moom ginnaaw ma sant sëñ Fallou Mbacke mais yaakaar doon dofam àdduna ak ilaaxira neex na. waaw xam nga ku jóge ba Ndakaaru Ndiaye gaare sa oto ngeen màggal si. kooku lu ma gisagul daal neex na moom neex na rek laa mën a wax màggal gi uta naag yeneen màggali jàll waaw ah, mais yow waxoo ma ci sa mbokku chauffeur si li nga xamante ne nii def nañ ko ci yoon bi de sama mbokku chauffeur yi dawal nañ ba gaare jox seen borom xaalis bi day mais est ce que du màggalu Serigne Touba gi nag yéen tamit da ngeen di war a wàññi pâche yi ndax ñi bëgg a màggal si dañoo bëri te jamono dafa metti waaw lool dëgg la joxe sama roo ngir bañ a yokk paas moo tax bu joxee sama oto gaare ko yëkkati ni am yaaxam xam looy dawaf ngir bañ yokk paas yi amee bàkkaar ndax mënu maa yokk paas sans papa mu ma jëlal oto ne ma bul yokk waaw. léegi sa papa dalaa jëlal oto moom nee na papaam daf koo jëlal oto ne ko bul yokk paas yi moo tax mu gaare otoom daal di jubal si fii ci màggal gi fa seenee màggal màggalam am ci tiyaaba daal di ñibbi. kon señ bi ñoo ngi lay jaajëfal bu baax a baax ñu bàyyi la nga sant Serigne Touba. waaw ginnaaw ma sant yàlla julli si bi sant samay ñaari waajur maa ngi sant bàyyi sëñ Fallou Mbacke mi Serigne Touba mi waral màggal du koy ñaanal rek sëñ Fallou daal ak njabootam ñëpp maa ngi leen di ñaanal. yéen tam yéen itam ñoo ngi leen di ñaanal màggalu jàmm ak salaam. ñoo ngi lay ziar bu wér a wér. ñoo ngi lay delloo ziar bu baax. Mm-hmm. Euh, tur beeg sant bi baaxee ñu ko. waaw ah, asxuma lañ koy wax. asxuma gën koo xam ci Baye Fall. ci Baye Fall euh, sëñ As fan nga jógee màggal si. maa ngi jógee Kaolack. Garaas Dakar Mm-hmm. waaw. Ah, bi ngay ñëw ci yoon bi yan jafe-jafe nga jànkonteel. benn jafe-jafe ci yoon bi sant yal dajeeg sëfoor bu am yar bu baax. Mm-hmm. yoon bi way lool gaaw lool wax benn jafe-jafe ci yoon bi sant suñu tubaab bu gis la nga nekk ci garage bi ndax oto moo jafe wala ni ñu yokkee paas yi Kaolack ak Njaareem ak yeneen dëkk yi day da nga ñëw ci garage bi ñu yokke ko noonu ba tax mënoo dem sa dal wala. waaw déedéet Kaolack moom yokku amu fa moom ndax fi ma jógee bis laa jël te 1000 francs laa fay wax dëgg yàlla Kaolack moom loolu amu fa damaa amoon ay wóllare fii ci garage bi ñëw ne fi yegg si waaw jaayante feeg ñoom dama fi daan jaay jaar di fi yëngu te yëngootuma fi di yëngoo kaw la meeg see mais naa fi jaar siyaare bokk taalibe yi doo ko jàlle liggéey bi waaw loolu moom ah, bi nga dugg see Touba lan nga yëg ci di Serigne Touba rek comme ni ko sëñ Moussa Ka di waxee xarat yoomi sabti saa di xismat ni muxtaar fi sahri safar taarix ba mooy ñetti junne ñett ak foog ñett lim bi lay wóor mu ma dégloo ma dellu na laaj xam lu mu xamul laaj leen borom ku leen xamal lu kenn xamul dafa jar boo yore benn yére nga jaay ko ñëw màggale ko bés bi bés bi maanaam képp kuy jullit waxuma sax kuy murit mais kuy jullit rek war nga ko santale Serigne Touba donte ginaar la ba ci gëlëm comme ni ko borom bis bi waxee ñu màggale ko noonu fas euh, mukk lu dul taalibe Serigne Touba fas yéene dee rek lii moo waroon ñëw taxaw bés bi donte benn yére lañ xamoon sax dañ koy jaay ñëw jaral nañu ko moo tax paas yokku yeeg yu wàññi ko yëpp ñun ñoruñu Serigne Touba rek ñu ñor moom rek moo ñu yëkkati waaw ah, kon daal bi nga ñëwee Touba yow sa xel dal na xam nga ne ñëpp màggal su ma fi xasee dugg damay mel ni maa ngi ci àjjana xamatuma fu may soxla xamatuma lu may xalaat xamatuma lu may bëgg lu may bañ maa ngi biir Touba rek sama ma ngi ni maa nga ci këru àjjana ga kon jërëjëf ñoo ngi lay jaajëfal naa xol bi daal sedd mënu ma wax ci ci ci yàlla borom bés bi ah, may lépp li nga xamante ne nii rek wut si woon nga ko ci màggal gi amiin waaw ñu gërëm borom rajo bi ak borom télévision bi di ñaan yàlla Eh, yàlla yokk seen i maxaama ba ngeen gën a koyee lu wees seen jot jërë ngeen jëf di siyaare suñuy wajur di leen ñaanal di siyaare sama sëriñ sëriñ Mody Baba Dramé yàlla yokk taxawaayam ak kattanam ci si Ahmadou Bamba. fan nga jógee màggal si. man maa ngi jógee Kaolack ñëw màggal si biir Touba. Kaolack wax laa jógee. ban heure nga jógee Kaolack. ñu naan si 2 heures et puis 5 heures démb. waaw. Euh, yan jafe-jafe nga jànkonteel ci yoon bi bi ngay ñëw. non wax dëgg amuñu benn jafe-jafe. Mhm. waaw amuñu benn jafe-jafe wax dëgg yàlla yoon yi na macha allah yoon bi amul benn problème. kon paas yi yokkuñu ko. non non yokkuñu ko ñun 2000 francs lañ paas ñu jógee Kaolack. ah as. bi nga dugg bi nga dugg see Touba lan nga yëg lan la sa xol sentir ci màggalu Serigne Touba gi. xanaa xol bu sedd guy guy guy ñun saal bi sëñ lépp lu soppi sëñ Fallou rek suñu xol day sedd xanaa kontaan yëg mbégte suñu biir xol di ñaan yàlla ko màggas ay yu bëree bëri ba si jëm sëñ Fallou. wala ñaan bi daal amul benn jafe-jafe. ah am na gisuma ko wax dëgg yàlla gisuma benn jafe-jafe. bu dëgg sëñ Fallou bi amul jafe-jafe. sëñ Fallou bi jafe-jafe am bànneex rek moo fi am dafa ñëw am bànneex doo ñibbi yóbbaale bànneex loolu laa gis man waaw. kon cantam gërëm ñeel na la ñoo ngi lay jaajëfal bu baax yàlla na nga màggal màggalu jàmm ak salaam màggal gu neex li nga fi indi ci njàqare yëpp Serigne Touba fajal la ko ñoo ngi lay jaajëfal. ñu ngi ñaan yàlla seen taxawaay bi yàlla na yàgg yàlla na yàlla yokk seen fan guddal seen leer si barke Sëñ Fallou Mbacké. amiin.